ci barke bisimilah rahmaani rahiim yal na ko sama borom yërëmee ci barke bisimilah rahmaani bi mu ko yërëmee def ko doomu aadama bañ ko def bàyyi ma yàlla yërëmaat ko ci barke bisimilah rahmaani rahiim bi mu ko yërëmee saxal ko ci baatu laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah bi mu tàmmoon di def te ñëpp seede ko baat boobu yal na ko dimbali بدوغل كا اجنا تبارك ان انزلناه في ليله الخدر وما دراك ما ليله الخدر ليله الخدر خير من الف شهر تنزل الملائكه وروا فيها بمن كل امر سلام سلام سلام هي بام بدون سلام سلام سلام سلام بدني بدوغ اجنا لما كنت خبال نك موي كو تيور بوبام لا تكون ماندولون ماندو ام اتيك ام كاريزما ام كاريزما كونك دونك تي مونو وون سي نيو دا مون دوما نيو waaye dafa am bu fa coon sekk newulee malgré coon sama rakk la ñun ñu ñëw seede ak suñu âge ñëw ñëw assister enterrement bi. koo xam ne dafa sa ci man waal yi si ñu koy njëkk. yéeg ci lay bokk te moom aussi moo fa njëkk a teew. bu fa deful euh, xaalis di dafa def aussi ñaxam wala sax présence am wala jabaram ñëpp ñëw donc maa ngi koy gërëm di ko sant di ko wax aussi na muñ. te xam na actuellement.

àjjana rek. dëgg yàlla waa lépp lépp lépp lu xew ci famille bi mook soxnaam kenn du leen fa jiit ci wàllu teraanga ci wàllu présence kon nag damay feddali li mu wax di féetewoo ñaan ñaanal ko yal yàlla dolli ko kàttanal yal na yàlla may ko dolli ko muñ itam yal na yàlla dolli teg loxoom ci ci njaboot gi nga xam ne moom Wally moo leen jiite bés bés ni ki tey am naa ci njortu rafet man Père Ousa am naa ci njort rafet ba su nii métti na nag ci ci doomu aadama waaye ñi demoon nii xam ne euh, ce sont des gens qui vont rester éternels dans l'histoire jeune ne parle même pas de la musique de la culture sénégalaise. na gën a muñ te xam ne métti na donc li ci gëm si kanam euh, moo moo moo bëgg donc nañ ko ñaanal incha